mustafa

هارون يوسف إلياس وآدم دا مداوس الكفل عيسى ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء الورود لك يا الله وبالملائكة ثم زوجهم جبريل ثم بميكائيل يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعلمون يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ومن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم sëriñ Moustapha Xumma ci njàng mu leer moomu ci am te am solo yal na yàlla barkeel xam-xam bi te baril sag maas ginnaaw loolu bala ñoo jox rekk sëriñ Ahmadul Badawi kàddu gi dañuy sant rek di gërëm Mm, mbokk yi nga xam ne ñoo fi doon yëkkati léegi xasaayid yi muy daairat xisbu tarqiya bu daarul quddus ni ñu ko baaxoo amale rek baaxoo ko defe noonu at mu jot ñooy ubbi jataay bi ci seen njàng mu am solo moomu noonu lañ ko defee ren yàgg nañ fi lool yëkkati fi ay xasaayid yu wuute am solo euh, dañoo nekk ci programme beneen bëgg am feneen fuñ dem def fa lu mel nii moo tax ñu jeexal ci waxtu wi ñu jeexal kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax ci turu sëriñ bi te di leen gërëm tey ñaan yàlla ñu yàgg def lii te daje ceeg ngërëmal sëriñ bi kon euh, mbokk yi sëriñ Ahmadul Badawi mooy njiital daa'irat Rawdu Rayaahiin moom la ñuy jox kàddu gi mu yëkkati kàddu ubbiteg jataay bi kon sëriñ bi bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain samahata cheikh mamor mbàkke ibnu cheikh muhammadin al murtada الرئيس الفخري لدائرة روض الرياحين وممثل الخليفة العام للطريقة المريدية في هذا المجلس أصحاب السماحة الشيوخ والعلماء وممثل الطرق الصوفية والحركات الإسلامية أصحاب الفضيلة ضيوفنا الكرام القادمين من الخارج أصحاب السيادة الإخوة والأخوات asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa baad fa yasuruni ayuha alxuduru alkiram an atawajjaha ilaykum bismi daairati rawd alrayaxin muraxiban bikum fi hadihi almadubati alilmiyati alruuxiyati althaqaafiya allati tuqaamu kulla sanatin fi tuuba almaxruusa litakrimi ahli alilmi walthaqaafa ضمن فعالية الاحتفاء بالمقل وشاكرا لكم ومقدرا للأوقات الغالية التي طالما ضحيتم بها للحضور وللمشاركة في إحياء هذا الحدث فجزاكم الله عن الإسلام وعن الأخوة خيرا هذا وقد اخترنا الغيب البحري لشيخ الخديم أحداث وعبر موضوعا لمحاضرة هذه السنة يتناوله أخونا الشيخ عافية أحمد نيانغ أحد علماء هذه المدينة المحروسة الأجلاء وأحد أبناء الطريقة المريدية الذين يفتخر بهم الدين والوطن وأحد الخطباء المرموقين في جامع طوبى العتيق نسأل الله تعالى التوفيق وتيسير له والموضوع لا تحتاج وجاحته إلى بيان li an alxayba albaxriya hiya alsababu alkaamin wara almaggal allazi najtamiu min ajlihi kulla aam wa hiya wa in tatakarrara wa in takarrara xadiisu nnaasi anha ay almaggal laa yazaalu fi xaya fi xabaayaaha maa yaxtaaju ila mazidi bayaan wa thiqatuna taama fi maqdarati muxaadirina ala tarkiisi ala maa yastaxiqu tarkiis wa ala almarri murural kiraam ala ma xaquhu dalik wa axiran natawajjahu bi shukri bi tashakkuratin jazila ila cheikh seydi almuxtar alxalifati alaam lilmuridin xafidahu llahu wa zaada min tamkinih ala ixtidaanihi liddaairati wa musaanadatihi laha maddiyan wa maanawiyan wa ila cheikh mahamadin almuntaqa mbakke wa shaqiqihi cheikh ishaq mbakke allasi yusharifuna bi ilqaai kalimati xitaami hadihi aljalsa wa ila cheikh Mamor Mbacke ibnu cheikh Mahamadin al Murtada allazi yusharrifuna huwa al axar fi iftitaahi haadihi al xafla bi kalimatin kulluha xikmatun wa ibra wa ila kaafati al usar wal jamciyaati al islaamiya ala al mawaqif al ijaabiyati allati nuqaddiruha jayidan wa ila lajnati al munazimati lil magal bi riyaasati cheikh Mahamad al Bachir ibnu cheikh Abdul Qadir ala xusni al ihtimaami wa taawun wa ila kaafati aadaai daairati walmutaawina maaha allazina yadaxuuna min ajliha bi kulli xaalin wa nafis fa jasa allahu aljamia xayra aljasa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yëpp di sant ñëpp di tàmbalee nuyoo bi nag ci Cheikh Seydil Mokhtar mi nga xam ne mooy boroom jataay bi di ñaan sunu boroom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën koo liggéey te nu ànd ko moom di wax ne Cheikh Sidil Mokhtar moom mbooloo mi day am mbooloom ndax bi nga xamee ne Cheikh Saalih Mbakke radiallahu anhu wa arda joxe na ndigal ci ñu taxawal jataay bii moom ak ay rakkam ak ay magam ñoom ñëpp dañoo xamoon ne lii liggéey la boo xam ne ñoo ko war a defal seen bopp ñi ci nekk itam ñu nekk ci seen kanam nekk ci seen biir ànd koog ñoom moom naka jekk mosu jóg-jóg ci xalaatam ak ci jëfam ak ci ay ndigalam ba yàlla dogal tey mu toog toogi Cheikh Al Khadim ñu di ko ko defar kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan sunu borom yàggal ko fi te may ko wér di sant sunu kilifa gu baax gi di Cheikh Mamor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Muqtada nga xam ne moom itam noonu ko Cheikh Sidil Muxtaar doon ko defee ak Cheikh Mahamadul Muntaqa ak mboolem seeni mag ak seeni rakk noonu la ko doon defee bis bi daje bi fi njëkk a daje moo ko jiite woon ba tey jii itam waxtu wu ne bu bis bi xewee ku ne xam ne li togg ci kawam bari na ndax ku toog toogaayab Cheikh Mouhamadul Mourtada nga xam ne léeg damay xaw a kii sax di wax ne moom doxoynu góor yàlla lay dox yanu góor yàlla boobu nag ku mu tegu ci say mbagg ku ne xam ne ne dis na kon loo ca boole rek pas-pas la ak yéene ak loola ñor la waaye du jot du kàttan du man kon bi ñu ngi sant bu baax a baax di la gërëm di xamal ne mbooloo mi ak gan ñi ak ñëpp ñi ngi rafet lu toogaay bi di masawu coono yi di sant Serigne Ishaq moom Cheikh Mahamadul Bachir nga xam ne moom itam mooy ndawul Cheikh Mahamadul Mountakha mi nga xam ne bu Serigne Maam Mor ubbee ba ànd ak ñun ab diir dañ koy yewi nag ndax ni ñu ko waxee coono yi metti na moom itam bu tàggatoo jotee mu ñëw yewi mbooloo mi tàggatoo ñoom saafaanteeg ñoom di nuyu Cheikh Mahamadul Mountakha nga xam ne moom yërëm ko moo te moom itam muy ñëw di ànd ak rakkam ju baax ji di fanaan ak ñun ci jataay bi moo tax mu boole ñëw ak sëriñ Mamor ak sëriñ Ishaq waaye fu mu nekk day teew teew teewlu jataay bi di ko ànd ak nun ba ba mu noppi waxtu bu nekk itam muy joxe ay ndigalam ay taw jihaatam ak ay cantam di sant nag kilifa yu tedd yi fi teew di gan ñi nga xam ne ñooy gani Cheikh Sidil Mokhtar di gan yi màggal gi duñu ay gan sax ndax seen kër lañ ñëw waaye xam na nañu coono yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel bàyyi seen kër bàyyi seen njaboot dugg Touba ni mu xate bu ñëwee ba Touba itam jàllantu gën a méttati bu nu jàllantoo ba yegg si ci kër yi itam du nu noppalu ci bëccëg am na waxtaan wuñ defoon ki démb am na nat ba buñ defoon tey ñuy defati benn def nañ benn ci bëccëg guddi gi nii ñor fee fanaanati waaye xam nañ ne nag loolu moo leen yëkkati loolu mooy teraanga ji nga xam ne moom la mbooloo mi di def at mu jot. kilifa mbokk yu tedd yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen sant di nuyu leen nuyoo bi ci sëñ Ahmad at Badawi bi nga xam ne moo nuy sant at bu jot nu ñëw ubbil leen jotaay bi ni mu ko waxee léegi muy loo xam ne daanaa ko wax ne xëy na. dang ñu cee dang ñu ko sas waaye defe naa ne ku nekk mën na ko kon buñ fi teewee dafa mel ne dañ fee teewal ñëpp tàmbalee ko ci ki nga xam ne mooy kilifa gi di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yàlla ko fi yàlla yàggal kon sëñ bi yow ak membre yi nga xam ne yéen a rabita bi wala daayira bi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci lii nga xam ne bii mooy fukkeelu at ak juróom-ñaar ñuy sant yàlla ci di ko teewe ba loolu jàllee ñu nuyu nag kilifa yi yépp nag muy kilifa diine yi nga xam ne ñoo waral jotaay bi ak ñi nga xam ne yépp ñoo bokk ci association yi wala organisme yi nga xam ne lépp dafa jëm ci diine ak xam-xam ñu ngi leen di dalal di leen nuyu bu baax di nuyu tamit sunu mbokki Mauritanie yi nga xam ne at bu jot ñu gis leen ñu jëmmal jotaay bi dañ euh, xam bu baax palaasu Mauritanie ci kër Cheikh Amadou Bamba ñu ngi leen di dalal bu baax marhaban bikum di nuyu nag journaliste yi nga xam ne aussi ñooy jot li wax ji di ko gën a leeral ci àdduna bi yëpp bu loolu wee niñ ko waxee bii mooy fukkeelu at ak juróom-ñaar ñu bëgg ñu am sant yàlla ci di ko teew fii ci ndigalul xalifa ak ci soñ soññeeb sëñ Ahmadul Badawi ni mu ko waxee rek la nee naa ko woon li ngay loolu mën nga ko sax yow te itam képp ku ci bokk rek mën nga loolu xëy na danga ñu ko terale wala sax sase ndax du tera ter teraanga léeg-léeg mën naa neex. wante xëy na sas la kon loolu moo tax ñu ñëw jotaay bi it dafa am lu bari lu mu symboliser dafa am lu bari itam lu mu leeral mooy dafa fedd li li nu fi fekkoon mooy bokk gi nga xam ne dafa jóge ci ay reen yu dëgër reen yoo xam ne histoire la sax wante yar na reen yoo xam ne deret la wante yar reen yoo xam ne tamit diine la te loolu waajur yi maam yi ak waajur yi ñoo ko sampoon ba tax lu mu niru niru niru lu lu lu ak lu mën a demee dara mënul tax mu mu mu daanu dara mënul taxit mu yolom loolu nag kuñ ko sëf responsabilité la bu mag moo tax te responsabilité it ku ne xam na ne du doon lu lu yomb ci ku ko ko xam kon lii ngeen def di teew ni ko sëñ bi waxee ci coono yi ak li ngeen di sacrifier ci seen bopp tañ xam ne bàyyi sa kër neexul rawatina nag kilifa kon loolu lépp li ko waral mooy da ngeen ko fee fekkoon te ña ko ñu ngeen ko jóge jëlee ci ñoom ñooñu ca la gënoon a mettee te dara daw ca manqué kon responsabilité boobu tamit jël ngeen ko yàlla na leen yàlla fay ni ko junjee léegi ne nit ku yiw boo ko dee woon ay ndab yu bari bët ba rek la ca am moo moom la cee tedde waaye la koy suural dëgg-dëgg nag mooy jataay boo xam ne dafay nekk xam-xam jataay boo xam ne dafa am njariñul diine jataay jataay boo xam ne dafay meññ meññan moo xam ne biir ba bu ca xasee suur duutu xiifati loolu mooy moo leen di suur wante xëy na li ci des bët bi rek lay doy lay suur kon jotaay bi dafa mel ne yéen a ko moom. kon ci turu xalif bi sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jottali nuyoom eh, te xam ne ni ko sëñ bi waxee rek seen kër ngeen ñëw seen barabit ngeen ñëw li tax nag. waa ñëw ñëw gi mooy sëñ Touba moo santaane ñu santale ko ko borom xëy na defe naa ne ku xool ci li mu bind ak li mu wax néew na lum ci woote ak wàllu ci dara yàlla rek la daan xettali ko waaye woote ak wallu ci doomu aadama moom ñu santale ko yàlla rek lañu ñu yëg ni ci lu mu ko def te loolu nag kon dafa wane ne moom lam ca lam ca lu mu ca mën a def bu tax mu doy ko xëy na loolu moo tax te kooku kon gis-gisam ci yàlla ak fam ca egg lu kawe la ndax loolu rek la mas a woote ñu di ko ci wàllu waaye lu dul loolu yàlla la ci sukkandiku wàllu go it xëy na dafa dafa xam ne lu mu ca def lu mu lu mën a doon doyu ci boppam ci loola kon loolu moo tax yéen itam ngeen mel na woote googu yéen ko moom yéen ko yéen ko yéen ko dégg ndax sant yàlla la ci def eh, sant yàlla gi it E, mi ngi ko ñi ngeen ñi ngi ko tànn ci fukki fan ak juróom-ñett ci ni ngeen ko xamee ci weer wi nga xam ne ci la demoon ci li nga xam ne mooy seen temu conférence xëy na ñi koy def danañ ko gën a leeral dafa mel na lu bare ci ay ay ay xew-xewam yàgg na bari na waaye dafa mel ne loolu moo ci gën a tar wala yu bari bari tamit ca la gën a feeñe junj na ko sax ci ay waxam loolu nag ba tax na ñu gis ne kon loolu la muy war a jur mooy def nuy gën a dolli rek ñu jariñoo ko ci xalaat ñu jariñoo ko ci xëy na bu fekkente ne sax ay kéemaan a ngi ci loolu ñëpp xam na ko wante nu jabar ñoo ko ñun ci fi nu toll ci xalaat ak fi nu toll ci xam-xam ak fi nu toll ci war a jëm kanam ak fi nu toll ci sunu ay njaboot yi nga xam ne ñoo jëm si ci kanam loolu moo tax ndax xam nañ ne fi jamono tollu gàllankoor yi ak yi teq-teq yi mën naa bari lool ndax léeg-léeg diine day dem ba xaw a jaxasoo culture ci dara nga xam ne nit ki aadaam ak doxinam moo ëpp ca la muy doxee ci diine walla sax civilisation nga xam ne nii la ko gisee. ci wàllu gisam wala sax bu dee koo xam ne dafa yaroo foo xam ne xëy na du du ko xamul ku génnut wala ku yaatu ku ubbikuwul day defe ne lépp lu mu war a xalaat ci lislaam rek da ko war a teg ci ak tëjoom googu loolu lépp nag dafa mel ne kon nun suñu xool ci diine dañ ko war a gëstu bu baax bañ a tënku ci nag tënku rek ci diine bi nga xam ne mooy lislaam alxuraan ak ak sunna te itam di bàyyi xel nag bañ a bàyyi xel diine bii nu am ci kenn koo xam ne mënees na ko tudd sax mercenaire ndax koo xam ne lu lislaam mën a yàq lu dara mën a yàq rek man nga koo def ci turu lislaam kon dafa mel ne kooku kay mus kay jullit dëgg-dëgg mënu laa sant loolu kon xëy na ka bëgg nga yàqal ko ko moo lay sant. lu yàlla na nu ci yàlla musal moo tax lu mat a bàyyi xel la ndax ku yàlla def diine jiital la. wala ñu di la ca roye kooku li nga gën war a ginnaawal mooy àdduna ak bànneex te ñaan mucc ci seytaane yàlla na ko yàlla defal kon nag defe naa ne yéen kilifa yi fi teew e, ñu nga xam ne rek bu nu xoolee taarix ci wàllu lii ngeen di bëgg a def seen conférence bi yaakaar naa ne am na lu bari luñ ci mën a jële loo xam ne du rek kiimaan ya wante rek ay jariñ la yoo xam ne mën nañ cee tënku ba la ñuy def dana ñëpp dem ba niru sax loo xam ne nit du ko war a mën a def wante fekk la ko lal mooy pas-pas ba ak ngëm gu sell ba ak ak la ca biir moo koy dem ba eggale ko ci foofu kon nag ngir bañ a guddal ñu ngi leen di santaat ci nii nga xam ne moom ngeen doxale bu jotee ngeen ñëw toog waxtaan kenn ku ne génn ci sa xalaat kenn ku ne wax loo xam ne da koy génn ci sa xol te lépp la ko ëmb rek mooy mooy gëm ak bokkoo wante tamit ak bennoo gi nga xam ne famille yi mësuñu ko tàqali ko te loolu ñun ñoo ko war a dëgëral xanaa rek liñ ci dolli xëy na mooy ñaan jotaay yii rek niñ koy waxee mu yaatu mu yaatu ci kër yépp fenn fu ci nekk ñu jàngat xam kilifa yi xëy na def nañ ko def ngeen ko wante tamit léeg-léeg it ñu tënk ci lenn mën a yaatal loolu yi tamit wàññiwul dara ci koo xam ne ndax xam-xam rek lañu soxla ak royukaay te ki nga xam ne tamit saa boo ko woo mu ñëw kooku tamit am na cër te yooyu loolu lépp xëy na mi ngi ci biir liggéey bi kon ñoo ngi leen di balu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. googu nga xam ne euh, sëriñ Ahmadul Badawi def na ko ak tatagal geeg dalal gi sëriñ Mamor Mbacke Murtada def. dañuy ñëw ak yéen rekk ci euh, pàcc bi nga xam ne euh, dëgg-dëgg moo waral jataay bi muy tomb bi nga xam ne tànnal nañ leen ko ren euh, bëgg ko ànd ak jàngat ko ànd ak yéen xalaat ci muy alxaybatul baxriya ahdaathun wa ibar Euh, ñu ci ànd sunu mbokk yu baax yi ñu dendal muy sëriñ Mamor Mbacke Hamdi mu war a dalal war a présenter war a taqdimal euh, Cheikh Afia Ahmed Niang ñi ñaan ñëpp rek ñu. yokk teewlu gi incha taala danañ fexe ba lépp ñu tënk ko ba dara du ci yàgg ñu mën a delluwaat ci dal yi balaa yàgg kon sëriñ Mamor fal tatafaddal mashkura aouzu billahi min mayli li gayri rida wa min sududi amma sunna wa furida bismillahi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahimu xaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina walil wali laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati arshida asalaamu aleykum wa rahmatullahi ñoo ngi nuyu suñu mbokk yi fi teew yépp di dalal gan ñi bu baax di ziyaare suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu bokk fii ni ko sëriñ Cheikh Makhtar waxee rek ñuy am mbégte lool ci daral suñu wayjur sëriñ Afia Ahmadou Niang mu war a ànd ak ñun ci waxtaan wi nga xam ne baaxoo nañu ko def at mu jot ci waxtu wi ci barab bi sëriñ nag weesu na fu ñu koy xamlee sax waaye bu ñu doon wax ci tënk rek dañuy wax lii nga xam ne suñu wayjur sëriñ Ahmadou Badawi wax na ko sànq ne nit la koo xam ne léppam dëkk bi la léppam ci dëkk bi la mbokkum dëkk bi la doomi dëkk bi la di doomi yoon muy doom ci sëriñ Mouhamadou Niang mi nga xam ne doomi sëriñ Afia Niang la mi nga xam ne mook Cheikh Mouhamadul Fadil ñoo bokk wenn wayjuru jigéen waajuru mu jigéen moom sëriñ Afia di soxna Zeynabu Mbàkke mi nga xam ne la ci suñu maam Ceerno Farimata mi nga xam ne doomi maam maaraam la xam ngeen sax suñu maam na Farimata moom moo meññi alxaaji Malik Si radiyallahu anhu ak sëriñ Abdou Aziz Dabakh yaakaar naa ci wàllu googu rek mën nañoo yem ci foofu moom Serigne Afia nag am njàngam bu ñu koy wax mën nañ ne ci ñi génnee ci école dëkk bii di Touba ci la bokk am njàngam lépp dara génnu ci dëkk bi mu jàngee ci diggante Serigne Alxaaji Mbacke Jaxate mi nga xam ne moo jiite daara ji ñuy wax daarul maarif al islamiya nekk fii ci biir jumaay Touba ji nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko tijji ci biir jumaa ji bi mu jumaa ji mu nekk fi ba léegi ak al imam Serigne ak al imam Serigne Bousso Baye Serigne Bousso ci ñooñu la Serigne Afia jànge ab yëngoom lépp it di alxuraan di xam-xam di jàngale muy jàngalekat ci biir këram di jàngalekat ci daaray nguur gi di jàngalekat ci fii ci jumaayi Cheikhul Khadim ji bokk ci ñi nga xam ne aju ma jot dañu fi joxe ay bind comme ni ñu ko junjee léegi mu doon koo xam ne kon bu ñu ko joxee tomb bii jox nañu ko ku ñu ko war a jox te jox nañ ko lu ko war a jox comme ni ko Serigne Cheikh Makhtar junjee sànq li ñu war a waxtaanee mooy al ghayba al bahriya li Cheikh al Xadim ahdaasun wa ibar bu fekkee samay wolof jub na yaakaar naa mooy tukkib sëriñ bi ci géej gi maanaam yóbbu gi ñu yóbbu woon sëriñ bi ci géej gi xew-xew yi ak lu ñu ci mën a jànge ahdaasun wa ibar loolu la ñu war a waxtaanee ñu ciy ndokkeel bu baax it daayira bi nga xam ne mooy daayira Rawdu Rayaahiin ndax tomb bu yitteel la ngir mbir yu bari tomb la bu yitteel la ndax mooy cosaan li tax ñu daje fii tey ci dëkk bi jullit ñëpp daje fi ñuy fàttaliku tomb bu yitteel la it ndax néewaana ñu toog ci waxtaan ci waxtaan woo xam ne dañ koy ubbi yaatal ko ba ñëpp mën cee jariñu kon ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax ginnaaw waxtu wi dafa xat du jar ñuy guddal ñu ngi dalal Serigne Afia rek di ñaan suñu borom defal ko feex bu baax ba li ñuy séntu ci moom mu ak yéene yi mu ci am mu defee ko ni mu ko bëggee kon sëriñ bi fal tatafadal mashkuran bismillah